Assalamualaikum warahmatullah. Patriot patriote cher patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare seen mbokk professeur Lamine Darou en droit agressé à grâce de cuune de état de APR particulièrement seen njiit Ndafa Dëxa euh, Olof Njaay daf ne saafaru sujur jàngoro suñ koy wax sis sis dëgg moo tax parce que bi ñu yàlla wàccee indi nu rew mu nan senegal ñu teunk ay loi ak ay règlement jël ay nit ñu dem jangi droit pour doxal droit pour que mu nek solution senegal la mais da mujjé tourner don problème senegal justice problème fondamental problème yi ñi wax yépp justice la parce que lan mo waral mu doon problème au Sénégal c'est ce que nous a xool Nous ko war que xool te dut ko Sénégal dafa am trois pouvoirs exécutif législatif judiciaire c'est faux c'est faux là wax parce que exécutif sénégalais yi ñoo koy président de la république du Sénégal ak nu mu muy assemblée nationale mais judiciaire judiciaire kooku kooku exécutif moo koy tànn moo waral fim ko joxoñ fi lay xool baa mu rëq ndiggam loolu nag moo wërta nekk si juge bi daa war a am sañ-sañu àtte la ko aqulay taalaam jox te exécutif du ko mën affecté wala mu koy c'est ça la réalité lolo japp justice bi du lenen sa buñu amé nit patriote la te bëgg Sénégal bëgg Sénégal su bi defar ko ba jaar yoon da ngay gis Sénégal day ci yoon wi di daw parce que yalla jox nañu lu wara jox nañu pétrole jox gaz jox fer jox nañ suuf su tàlli jox nañu jant jox nañu ndaw ñu nangoo liggéey jox nañu lépp deseelatuñu dara waaye njiit yu maandu lañu joxut joxuñu justice bu jaar yoon mais suñu joxoon justice bu jaar yoon tey da ngay gis Sénégal di daw ay kilomètres yu bëri di dox parce que justice bu jaarut yoon koom-koom du fi am koom-koom du fi am muy émergent développement du fi am parce que justice moom moo yanu loolu kon comme kon banqaas bi nga xamante si nii moo yanu loolu mais naka la ñu nangoo am nit koo xamante si nii mooy nome ña fa nekk loolu dafa jaarut yoon sax parce que bu fekkee nit la koo xamante si nii liggéeyal Sénégal taxu koo jóg comme ñii fi nekk seen intérêt bopp moo leen tax a jóg ñooñu seen intérêt bopp rek la ñu xool dañuy dem ba def intérêt Sénégal dootuñu ko xool loolu moo jàpp justice bii

ci wàllum droit wala ngay nekk sax doomu réew mi loolu da nga ko war a bañ parce que bu justice amul développement du am loolu moo téye Sénégal li waroon a nekk solution Sénégal mu mujjee nekk problème mu Sénégal muy justice bii ñu nekk dafa am ay ay mbir yoo xam ne appel d'offre lañ ko war a def mu ñi nekk ay conseil constitutionnel wurta nekk ñoo xamante si nii dañ leen di nommer ñoonu sénégalais ñoo leen war a choisir ñu am ay mandat yoo xamante si nii moom lañ fa war a def ak yun fa wërta def mais warul nekk nit mooy toog di señale fal naa diw fal jële naa fi diw non non su ñu ko defee justice ju jaar yoon parce que looloonu jàpp kon mbokk yi nañu xoolaat justice bi dëng na lool justice bi dëng na lool nañ ko jéem a jubbanti dëng ne na garabu yoo seen mbokk professeur ñu daaru euh, en droit agressé à grande tournée de état de APR particulièrement seen njiit Ndafar